ba tey ñu ñëw euh, ci li nga xamante ni moom moo di société bi ñu xam ni gis nañ ci lu bëree bëri lu si yàqu maanaam euh, am na ay liggéeyante am na waxante yu bon am na defante yu bon euh, surtout ci liggéeyante bi ngi gis nit boo xamante ni day ànd ak sagoom ñu liggéey ko ba mu ba mu sagoom gis nit boom te ni day yor alal ñu jàpp ko di ko liggéey ba ne maanaam kii dootul tekkeeti maanaam jot gi gi nit yi am di si yàq seen seen moroom nit ñi est-ce que yaakaaroo ni euh, bokk na tamit ci li gën a tardé suñu réew. waaw bokk na ci ndax xam nga li gën a njëkk a tardé réew. mooy xeeti gëm-gëm yooyu. ndax réew bu fekkee dañ ko seetaan ku mu neex rek nga toog di publicité sa bopp. maa man nangam maa man nangam boo ñëwee ma faj la maay def nangam maay def nangam. te réew ma amuñu benn xam-xam bu sori bi ñu ci bari ay analphabet lañu buñ ko gëmee rek topp yooya léegi gëm njibar day dugg te njibar lu xaraam la. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni képp ku jug jëm ci ab njibarkat mu gisaanel la wax la ni la nangam dana am su fekkee gëmoo ko sax waaye jot nga caa dem ñeen fukki guddi loo jaamu yàlla duñ ko nangu su fekkee nag dangaa dem mu wax la nga gëm yéefar nga génn ko sama diina ci loolu ni ko nit di xamee ba noppi te mënoo loo yàlla yàlla noppi na ci nit li mu war a am kenn mënu ci dara boo te doon nelaw li nga war a am da ko am boo yàkkamteet da ngaa yàkkamte sa wërsëg rek la nga war a lekk ngay lekk loo warta lekk kenn mënta fexe ba nga lekk ko bu la réew mépp yéene woon jàmm di la ko wutal te yàlla nammul ci yow nga am jàmm doo ko am mm-hmm. bu la réew mépp doon xeex te yàlla fas yéene nga am jàmm kenn mënu laa xeex ba xañ la jàmm li nga war a lekk foo jaar mu fekk la fa sayyidina Ali karramallahu wajhahu nee na ah, alayka bi taqwallahi in kunta gaafilan fa yaatiika bil arzaqi min ay la tadri fa kayfa taxaaful faqra wallahu raziqun waxat razaqal atyaara wal xóota fil baxri nee na yow jën yi ci géej gi sax yàlla ngi leen jox seen wërsëg picc yi di jot seen wërsëg yàlla sàkk la ci xeetu yanant bi alayhi salaatu wasalaam dig la ni la li nga war a lekk maa ko programmé avant ngay judd dinaa la ko jox loolu war jarta yàqante jarut iñaan jarut liggéeyante jarut jiiroo jarut xëccoo jarut gourmandise mm-hmm. lool la nit ñi war a xam ñu jàngal leen ko njibar baaxul dafa xaraam ne nit ñi toog te wéeru ci yàlla te fas yéene jubal te ku nekk nu mu mel mu neex la sëñ Fallou daa waxoon man de dina am jàmm ndax dama ko yéene ñëpp su ko ñëpp amul it man mi leen ko yéene dinaa ko am mhm. waaye nit am na nangam sa xol di ci tàng diw dafa am ay pexe yu mu jaar loolu mënta nekk xanaa kon yow danga ngay poñe yàlla ni ko waroo jox diw nangam mhm. senegal loolu moo nu tardel nanguwunu kenn ku jiitu ku jiitu ren ba déwén ñu ngi lay gotte say tànk ñu ngi lay waxal lu dul dëgg ñu ngi lay tuumaal ñu ngi lay jéem a xeex ñu ngi lay liggéey la ngay sonn ci nit di ko liggéey boo ko sonnoon ca bopp ci liggéey sax am dara yow. waaw kon loolu la ñu war a gës fas yéene def. la ngay sonn ci nit. Mhm. toog di ci nit. Mhm. vingt quatre heures ngay jëw nit di yàq deram di wax ci moom wut programme wut sa temps toog ci grand place di ko wax. boo ko sonnee ci sa bopp dang-dang lee nga am dara. temps googu temps temps googu nit ñi am nga yaakaar lan moo leen ko may lan moo tax ñoom am temps boobu. ñàkk liggéey ndax it xam nga tey dëkk bii ngeen nekk yéen muy Amérique ko nekk xam na ni fii time is money. Mhm. lost time is never found again. dëgg la bépp temps boo yàqu doo ci jotaat. dëgg la américain gis ngeen seen nuyoo sax day gàtt ay aay rek mu jeex. jeex na pare aay. Mhm. good morning sax guddi gi léegi duñu ci egg morning dem seen yoon. <laughs> saa suñu xëyee. 24 hours ñu ngi liggéey. Mm-hmm. guddi ak bëccëg. su xëyee liggéey gont liggéey. boo dikkee seen dëgg seen dëkk bii résultat baa ngi nii lépp ñoo ko raw lépp ci àdduna bi. liggéeyee leen ko may. Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dafa wax temps dafa foor boo xamee temps te toppatoo ko di nga jënd sa àjjana mu leer nañ ci sa temps sëñ Touba wax na ni euh, na ngeen góorgóorlu ndax ñi faatu dem ci bàmmeel yi seen jeex na ñoom. Mm-hmm. moo tax yàlla rey leen. Mm-hmm. sëñ Tuubaa ni ñoom lañu ñu gën a bëgg nag mooy dellusiwaat ci adduna sàkku jiwaat ay tuyaabaag yiw mm-hmm. kon yéen ñi deewagul bu leen yàq seen temps temps dafa foor kenn du ko fawe waaye gis ngeen Sénégal rek ngay fekk koo xam ne looy liggéey mun la dara toog di jëw huit heures de temps da koy jëw cinq heures de temps ci waxi jàmbur ci problème mu jàmbur rek. dañoo dem ba suñu réew da koo xam ñàkk a liggéey. ba boo seetloo bis bu jot benn information rot Sénégal boo ko seetloo bis bu jot ak liñ ñuy jox coow rek bis bu jot tey ñu ngi ci waykat sangam moo defal waykat sangam nangam da ko doon jëw jàpp nañ ko nit ñi débatté ci juróomi fan. ginnaaw suba sëriñ sangam moo wax sëriñ sangam nangam ñu def ñu toow coow ca weer coow la jeex. Mhm. ginnaawaati suba diwa saaga diw. diw moo la fekk jabar diw nii rek la Sénégal di dunde information yi demee noonu. ñu mhm. jàpp ko rek guddi ak bëccëg politicien bi wax na lii moroom politicien mhm. noo ko gisee kii da koo tuumaal werante grand place suba ba ngoon sunu temps di dem jéemu ñu développé suñu réew jéemu ñoo setal suñu réew nangu ñu liggéey dangay ngay gis kuñ jox liggéey bu am importance mu war ci xëy suba teel huit heures war ko fekk pointé pour liggéey mhm. mu nelaw nelaw ba onze heures lay xëy ñu bari di lor ñu ko soxla onze heures lay xëy bu seize heures mu waroon a wàcc 18 heures 16 heures mu wàcc dem te bu weer wi dee mu yàkkamti maam jot ci loolu muy lekk àq la parce que liggéeyut lu ko mérité mm-hmm. kon loolu Sénégal war nañ ci bàyyi xel temps bi ñuy yàq dafa bari ci Sénégal mm-hmm. te lu leen dul jariñ képp ci lañ yàq temps ci lañ yàq temps waaw loolu lu mat ah, ñi ñëw ci li nga xamante ni moom dafa xew ci jamono ji yaakaaroon naa ni sax Euh, dañ na waaye euh, fii ci réew mi moom di ñu ci bëree bëri bëri ñu ngi koy dund moom lañ ma daal di envoyé léegi si message euh, doon ma laaj benn question boo xamante ni nit ñi nga xamante ni dañuy bëgg sëy seen biir waaye maanaam ci parents yi bu ñu demee ba ci biir dañuy wax ni kii géwal la wala ñu ne kii lii la ba tax na du ñu mayante seen doom yi seen biir parce que dañuy bëggante seen biir waaye mbirum xeet mooy dox diggante ñu may leen ñoom ñaar. waaw xeet de moom Euh, yanant bi tudd na ko nag tudd na wàllu askan wu rafet waaye la taxoon mu koy tudd mooy bëgg rek ndax démb nit bu juddoo ci askan wu rafet ñaare day am ngor ñaare day am jom ñaare du nangoo fo du nangu yu bari loolu dong tax yenent bi suluñi ko bi wax ni bu ngeen di takk jigéen takk leen ko ngir alalam wala ngeen takk ko ngir askanam wala ngeen takk ko ngir diineem wala ngeen takk ko ngir taaram ni bu yëpp di manqué nag ni yëpp manqué ba mu des diine lislaam moom ki fa gën rek la xam te ni ñuy gën a ci lislaam mooy gën a ragal yàlla mais mais mais mais est-ce que est-ce que est-ce que si diggante diggante xeet googu yonent bi def si wax ne maanaam tukulóor wala li loolu laa la bëgg a indil loolu laa li Sénégal gëm te muy aada kepp mhm. moom laa la bëgg a indil ma ni moom ba muy wax loo askan liñ ciy jàpp ñun taxul woon mu koy wax moom mhm. diine mooy priorité ci lépp yonent bi dañuy jiital leen tiine waaye Sénégal rek ngay fekk nit koo xam ni defu la dara baax na nangu naa liggéey am na yërmande nga ne duma ko may sama doom parce que askan wii la bokk man askan wii la bokk loolu retard la gis nga sëñ Bamba dañuy góor jëkkër biñ koy laaj sëñ Tuuba dañuy jëkkër bu tabee am sutura jigéen mën naa nekk ci kër góor su tabee am sutura jigéen mën naa nekk ci kër ni jigéen su gàttee tam eh, eh, làmmeñ gàtt tànk góor gu ne mën na ko yor kon yii mooy qualité yi ñu seete mhm. na nekk jigéen ju gàtt làmmeñ mhm. du tontu ndax tontu sa jëkkër day waral say doom duñu am baat ëllëg bul tontu na nekk tamit ku gàtt ab tànk jigéen du doxi day toog ci këram mhm. bu fekkee mel na nii neex na yor waaye ñun léegi li ñuy natte mooy lan amal alalu àdduna sama yoon nekku ci boo amee alalu àdduna d'accord naa boo amul alalu àdduna bañ naa la. ñu génnee xeet. ñu génne xeet jéem a seet te fi ne génne xeet gi gëmuñu ko ndax bu amee alal dootuñu xool xeet ndax léegi boo xoolee Sénégal ngay gis ko naan dama may sama euh, doom diw parce que diw ab ñeeño la wala diw nangam la te bu ëllëgee tubaab la koy may. Mm-hmm. xam nga loolu mat naa seetlu tubaab man gis naa doomi sénégalais yoo xam ni tubaab lañ leen may. Mm-hmm. may leen italien wala benn belge wala benn portugais. kii fan ngeen bokkee. ñoom te moo leen gënal ñu may ko ñu ñu kon nag mooy dañu topp ay bakkan rek. Mhm. kon nañu xool ku mën a tee yor sa doom te yàlla tax. nañu xool première qualité mooy na am diine. Mhm. na ko diine ñor. nga xool ni mu fonkee waxtu wi juróom xool ni mu fonkee ndigalu yàlla xool ba xam am na yërmande xool ba xam am na jom nangu naa liggéey xool ba xam tabe na mhm. yii la ñuy xoolee ni kii góor yàlla ko may jabar mu yor na am jom nangoo liggéey te mën a joxe am diine te dëggu jigéen na gàtt làmmiñ gàtt tànk am kersa neex a jubbanti am soumission déggal borom këram di jëfe ndigal bàyyi tere mhm. jabar la waaye yii ñuy natt du ay nattukaay yi ñuy natt ci Sénégal du ay nattukaay mooy rek dëkk bu tardé rek ci côté yëpp lay doon dëkk bu demee ba nga xam ne côté yu bari dafa tardé rek fépp lay feeñ ci fànn yëpp mhm. waaw loolu rek mooy affaire